ñun suñ coalition moo gën a rëy coalition benn bokk yaakaar. yéen euh, Madické Madické Niang 2019 moo gën a rëy. coalition benn bokk yaakaar benn bokk yaakaar. ndax benn bokk yaakaar tey bu nekkoon soow dama naan niiw gi tuuru na. Mhm. ndax bul fàtte ne Malick Gakou ci benn bokk yaakaar la bokkoon. effectivement Mansour si Djamil ca la bokkoon. Mhm. nga jël tey jii xalifa Sall bi ca la bokkoon. Mhm. ak yeneen ak yeneen. te PDS mi nga xamante ne moom la ñu daanaloon en 2012. bi ñu koy daanal mi nga amoon 36 pour cent ci élec bi fi nekkoon. te PDS moom gab boobu ba tey mi ngi koy mi ngi koy téye léegi nag la woon tey nga xam ne mooy cinq pour cent yi tey. ne la na tey dafa xaaj ci digg ba genn wàll gi wàcc ñëw fekkaat opposition. Mm-hmm. kon nag ñun suñu amee le nombre le maximum de parrain c'est tout à fait normal.